je, en tant qu'enseignant euh, euh, euh, chercheur, mais je vais, je vais en parler en tant que citoyen. Mais c'est de dire que. mbir mi nag du ci àddu en tant que enseignant chercheur waaye dama ci àddu en tant que citoyen lambda ndax askanu Afrique ñëpp kontaan ci décision bi nga xam ne président Macky Sall moo ko dal di jël ndax loolu kat ñun ñëpp moo nekkoon suñu bëgg-bëgg ndax lépp loo xam ni bëgg nañ koo def ci li nga xam ni moo di jàng mu kawe bi dafa dal di am rapport ak donc su fa jaamu amul du ñu mën a def leneen donc décision bi dina tax ba Sénégal mën a soxalikuwaat ci lu mel ni démocratie ñuy ñaan Sénégal jàmm daal dafay dellu si ginnaaw décision bi nga xam ne président Macky moo ko daal di jël. en poursuivre et, normalement euh, que la paix revienne donc.